daanaka dañ leen a relégué au second plan. ku ci yëngu ñu dóor. ku ci wax ñu dóor lu ñu yëkkati seen loxo ñu xaañ leen ko te loolu moo tax tey indi sax ndaw ñi nugutu noo toog ci réew mi. Mmh. waxuma sax ndaw ñi waaye jigéen ñi léegi nugutu noo toog ci réew mi wax mag ñi sax am na ñuy sàcc di dem. kon xalaat bu diir quoi. que ni kenn yi xam ne ñooy tënk. maam ñu mën a wax ni lii kat état de droit la état de droit boobu dafa naax saay bu ñu xoolee ci doxinulu maanaam réew mi ni mu tëddee. Mhm. loolu nag moo yóbbee maanaam yóbbee maanaam ku mel ni formation politique bu mel ni Pastef ak taxawaay bi mu am. ak jaar-jaar bi mu am eh, nga sañ a taxaw xëy benn bis ni da nga koy dissoudre par décret par un simple décret or bu ñu fàtte bu baax ni réew mi maanaam la per euh, en tout cas euh, le symbole. Mmh. en fait qui exerce en fait donc la souveraineté en fait donc de l'État reste et demeure le peuple. D'accord. or c'est ce peuple là <laughs> en fait donc ñoo wane ñoom seen adhésion en fait donc ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu Pastef Pastef tey coow lee bari formation politique yépp ci réewum Sénégal Pastef moo jëpp doole mmh. loolu c'est loolu non non non la vérité on la cherche monsieur Sarr mais l'évidence est sous et tout le monde sait que tey jii bu nu xoolee ci wàllu parrainage yi xam ni wax nañ ko bu yàggul léegi mmh. ana loo ci gis pare naa yi avant Pastef di wax ni diw la ñuy ne ndax déggoon nga engouement zéro engouement. mais loolu c'est factuel. mais ñoom nee nañu am nañ 3 millions. ah loolu ay caaxaan la ah loolu caaxaan loolu ay caaxaan la ñu la gën a xam xam nga euh, say jii bu nu waxantee dëgg xamu yooyu yëpp xamu lu muy firi rek. mooy ñoom fa nu jëm. Mhm. ragal nañ ko ana lan lan yaakaar mooy jëfee doore. léegi il faut ñu préparer les Sénégal te seetlu leen c'est monsieur Sarr hmm. boo seetloo gouvernement bi xam ne ñoo yor réew mi jamono yi xam nan la ñuy doxee lépp luñ bëgg a def ci réew mi lu jiitu ñu koy def dinañ yónni ay doomu aadama ñu dem ci plateau télévisé yi pour théoriser loolu. dañuy envoyé cliché ah oui sans doute pour mm. xool est-ce que loolu dina jàll wala jiw yàlla maintenant si la pilule est amère ñu reprendre. c'est ça la vérité wax ku mel ni Yérim ak ku mel ni mais man duma ma cité xam man damay bëgg toujours. Mm. rester dans les principes et les valeurs. man du ma tudd doomu aadama ci débat. Mm-hmm. du ma wax ci doomu aadama waaye yàlla yëg naa ni. Mm-hmm. man je suis un observateur te maa ngi gis également liy xew ci sur la place publique boo seetee fii ci réew mi. maam ñi xam ne ñoo toogee ngànk euh, maanaam réew mi tey lépp loo xam ne nii bëgg nañ koo jàllale ci réewum Sénégal mhm. da ngay gis ñu wut ay doomu aadama yoo xam dañ leen di solal maanaam euh, ba nu fees ñuy waxal loo leen loo xam ne nii loolu leen bëgg a def waaye dañuy tester pour sonder maam li populations ba xam naka la ñuy réagir ni ñu supposé ne ñoom la ñu solal kon ñuy wax euh, am na ci kenn ku ne mhm. élection yii mu gis nii moom mhm. élection premier tour la mais élection yi loolu dafa leer élection bu tegoo ci yoon ah premier tour. ñu organiser ko de manière démocratique. Mmh. avec transparence mmh. de manière inclusive. Mm-hmm. yàlla xam na ni wax ma sax ay premier tour di xaar soir mais avant midi. avant midi carte gi leer nañ parce que li wóor mooy Sénégalais yi li ëpp ci ñoom li nu feeñal mooy ñoom digluwul kenn ku dul Ousmane Sonko ak lu takk ci moom. Mm. loolu mooy li weer loolu képp ku yor sa micro. def en fait sa enquête wàcc sur le terrain di nga gis ni en fait yi benn bëgg-bëgg lan am mooy kii di Ousmane Sonko jiite réewum Sénégal en 2024. mais maître merci beaucoup fi nga fi toogee sax dafa baax ci jamono joo xamante ni Ousmane Sonko mu ngi ci prison. Mhm. beneen candidat di Bassirou Diomaye Faye bu ko jege mu ngi ci prison. Mhm. ñoom ñaar ñëpp. Mhm. juridiquement parlant. oui mënees nañoo bokk ci élection. ah mën na bañ a bokk xam nga moom lay wax. xam nga euh, kii wax naa la sànq ni la euh, sëñ ji bi. buñ waxtaan nan waxtaan ci xam-xam surtout bu ñu demee ci maanaam espace public bi xam nga mm. Socrate da doon wax ni pour asseoir un édifice on prend conseil auprès d'un mm. de même pour un vaisseau aucun autre avis n'est mm. et s'il s'agit de sur les affaires de la cité chacun se lève marchand forgeron riche ou pauvre noble ou roturier alors qu'il ne étudie nulle part et n'a été à l'école de commerce ça veut dire quoi que ni fii ci réewum Sénégal mm-hmm. bari ay sujets yoo xam ni dañ koy agité soit juste il faut que chaque chacun s'occupe de la tâche à laquelle mmh. il se sent le plus doué par nature mm-hmm. tey jii bu ne est-ce que Ousmane Sonko au plan technique juridique man mm-hmm. mm-hmm. na bokk wala mënta bokk dama lay yóbbu ci constitution bi xam ni moonu moonu moonu moonu moonu moonu tënk ñu ñëpp wala ñuy xool ce qu'on appelle en fait le code électoral xam ñaari ñaari ñaari ñaari kàggu yi ñooy àtte mbirum élection boo jëmee ci dama lay renvoyer ci article vingt-huit article 28 dafa wax ni nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales nul ne peut en fait refuser l'inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais jouissant des de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles 34 à L36 du code électoral. d'accord euh, maanaam code bi xam ne ci la ñu àtteekoo ci wàllu. maanaam politique ci wàllu élection nee na. fii ci réewum Sénégal kenn munta xañ doomu aadama mu bindu ci liste électorale yi bu fekkee lenn ci ay droits civils wala politique xañunoo ko ko maa mu dëppoo ak les dispositions des articles L34 ak L36 Ousmane Sonko fii ci réewum Sénégal ana kan moo ma mën a wan cëslaay bu wane ni maam il a perdu ses droits civiques et politiques kan. Hmm. est-ce qu'il y une décision de justice bu ko ko xañ amu fi nan ma ko wax. bu waxtaan waxtaanee dëgg rek laa nan waxtaan ci dëgg bañ a tuur maanaam askan wi aw lëndëm mais ñu wax ak askan wi ci dëgg ak ci xam-xam da maanaam loi bi dafa wax ni pour nga mën a bañ a teewu ci ay élections politique day fekk nga perdre vos droits civils ak vos droits politiques or Ousmane Sonko ba fii meew ak yow il garde intact en fait sa qualité d'électeur et son éligibilité. même ko génnee ci fichier yi. ah kan kan moo la wax ne ko génne ci fichier yi. ah noonu la demee non la procédure est toujours ba fii may wax ak yow nii maanaam cour suprême bi mu wujj yàggul. Hmm. dégg nga la mu wax dafa renvoyé ni na ko ñële atte kon lu atteegul la. kon hmm. bu nee dañ ko maanaam génn ci maanaam fichier électoral bi ñi koy wax amuñu xam-xam wala teguñu ko ci xam-xam dañuy wax ci ni leen neexee wala ci leen bëggee. Mm-hmm. waaye kuy wax te xam-xam rek tax yow xam nga ni Ousmane ko fii ñuy wax fii Sénégal amul kenn ku mën a wane ci ci wàllu yoon lu wane ni moom nekkatul électeur wala éligible parce que amul une décision de justice bu ko effectivement condamné de manière définitive et légalement. d'accord kon à partir de ce moment. Mmh. Ousmane Sonko au regard effectivement donc en tout cas de nos de notre législation actuelle en fait reste en fait un citoyen sénégalais titulaire donc de sa qualité d'électeur et effectivement donc il est éligible plus que éligible que quiconque en conséquence man je ne vois pas le pourquoi ñu agiter en fait débat est-ce que mën na bokk wala mën na d'ailleurs euh, pour preuve ouais, pour preuve pourquoi l'administration en fait donc fiscale en fait donc kii euh, noonu tudd la euh, noonu tudd ñuy recevoir les les les kii la la caution mm pourquoi bi Ousmane ko demee ils sont mandataires demee ci ñoom la caisse de dépôt et de consignation bi demee ci ñoom pour déposer lu tax ñu nangu leen ko ca sensé parce que xam na ni mën na bokk. mais nee nañu dañoo bëgg ah non non loolu ay caaxaan la nu loolu ay caaxaan la ngi bi loolu ay caaxaan la dama lay wax ni la gis nga képp koo xam ne nii yaa ngi atteekoo ci dëgg mhm. di atteekoo ci yoon par lu maanaam képp ko la képp koo xam ne ci noonu nga doxee wóor na la xe wóor na la ni xel ni kii di Ousmane Sonko maam ba fii ñuy wax ak yow électeur la te ko ku éligible la ci élection yi xam ne moom la ñu jëm. kon entre parenthèse ay dafe bu ko neexee mu téye quittance. ah lu mu koy ah, joxe ci ko yoon c'est un droit xam nga sa droit ak yi la lu mu loo xam ne yoon moo ko ko may illa moom da koy garder intact. Hmm. delloo ko pour lan pour delloo pour fan ban lan mooy cëslaayu delloo ko. Ah, ñoom ñoo fii ci réewum Sénégal dañuy àttee ko wax ni képp ku bëgga a dem ci ay élection maam présidentielle dafa am ay charte ay conditions conditions ya bokk na ca. déposer en fait ce qu'on appelle une caution au niveau de la caisse de dépôt et de consignation mmh. yow mi xam ni yaay mandataire u maanaam ki xam dafa bëgg a jongante ci ci ci élection yu ñu jëm mmh. kookee yónni na ko en bonne et due forme jox ko toutes les conditions requises mu dem maam ñu accepté ko mu fay ñu jox ko kii quittance mu dellu def déclaration ana lan moo des mmh. est-ce que remplir la formalité la formalité elle acquise d'accord donc à partir de ce moment leneen lu ca waaye di man di wax rek ay ci fi caaxaan la maa lay xamal ni la. Mhm. fii ci réewum Sénégal fekkee ne àttee ko ci dëgg ak ci njub ak ci xam-xam maanaam kenn ko mën a wane jëslaay luy wane Ousmane Sonko maam du candidat amu fii ci réew mi. il en ne de même. Mhm. pour Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye waaw. Mhm. Euh, Bassirou Diomaye Faye. mais dëgg. Bassirou Diomaye Faye L57 bi na dégg. non non non non L57 bi dañ koo yëkkati mooy li ma la wax dama la ci njëlbeen. Mhm. ñoom boo leen gisee ñoom lépp luñ bëgg a doxal rek dañuy daal yónni une armée. boo xam day dem ci presse bi di coow di wax ci loo xam ne ni wér na leen ni dëppwul ak wàllu yoon mhm. ci njëlbeen lañu def dañu agité l' article L57 mhm. mais article L57 bi li mu wax leer na mhm. kaay ma liiral la ko article L57 bu code électoral bu Sénégal dafa wax ni tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature mmh. et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi et que la candidature est porté soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de parti politique légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes. Et la loi définit en quoi faut-il entendre par effectivement entité indépendante. Il dit, la loi dit, et in candidat indépendant, celui qui n'a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins une année. Alors, fii kan moo mën a sukkandiku ci lii ni kii di Bassirou Diomaye Faye mënta nekk candidat. ñoom peut-être foofu li ñu fa soulever mooy parti légalement constitué. waaw mais Bassirou Diomaye Faye le problème du soir c'est l'histoire du problème Bassirou Diomaye Faye n'a jamais été porté sa candidature n'a été portée par en fait donc euh, maanaam le PASTEF c'est un parti un autre parti politique légalement constitué qui a